xam ne am nañu contrat tey liggéeyee ci bërëbu fajukaay yi ñoom ñëpp dajaloo fii ci ndakaaru ñoom ñëpp ñu daal di tàq ay morceau yu xonq ngir fësal seen naqar waaye itam jàllale seeni mbébét liggéeykat yi nag jàpp ne dañu leen a beddi ci ndàmpaay yi nga xam ne njiitu réew mi jébbal na ko liggéeykatu hôpitaux yi ci seen wàllu dëkkuwaay. président de la république en mai 2022 dund bi cher logement yi tar ci Dakar ak un peu partout dans le Sénégal mu indi ay indemnité jox ko personnel de santé bu mu koy jox nag amul xaaj ak seet ñu commencé séddale ñu gis séddale bukki ñàkkum boobu sàmmonteeg boobule décret liggéeykat yi jàpp ne loole moo waral ñu meex ba futt fonctionnaire yi nga xam ne mootuñu sax un dixième dans l'hôpital ñu jox leen ñun anañu ci la ñu commencé di grève di sitting di def lu ne avec seen syndicats xeex boo gis fii syndicaliste yi taxawal c'est les contractuels ñoo taxaw ci kanam ñii nii nekk fi tey ñoo taxaw ci kanam xeex xeex bi. xeex bi nga xam ne nag ñu ngi ko dénkoon syndicat yi daanaka jurul dara ba loolu waral contractuels yi daal di fas yéene doxal seen bopp ngir ut safara ci seen i jafe-jafe. ñun kenn kenn dootul aji di waddal ñuy for ñun dañu bañ a aji comme ñëpp ndax dëkk soo buggee mu am jàmm hôpitaux yi moom war a njëkk am jàmm ndax ku feebar ci hôpital nga jëm sinon ce collectif là. ça représente tous les hôpitaux du Sénégal donc dañoo pare ñun pour jël suñu destin en main. assemblée générale bi ëmb contractuel ya nekk ci établissement public de santé yi dajale woon nag seeni membre yu bàyyeekoo ci fukk ak ñeenti région yépp